wéy di defati ay jëyee ci waax yu nekk ci Sénégal gune yi la ñu bëgg rekk mooy yegg ca Eldorado ñuy jël gaal ba ñenn ñi ñàkk ci seeni bakkan mu nekk ab xew-xew bu gouvernance migration et développement yàgg ko di dankaafu ba noppi itam di ko ñaawlu. phénomène migration dafa dafa yàgg. am na amaat na te day continuer di am dama yaakaar ne kay tey fu ñu toll dañu war a xool nan la ñu war a yan pexe ñu war teg pour que ñu mën a. xeex n'est-ce pas la migration irrégulière bu ñu fàttee aujourd'hui lu ëpp ci jafe-jafe yi tax tey ji nii dañoo am souci pour que ñu mun a liggéey ce phénomène mooy que waajur seen bopp fu ñu waroon taxaw pour man taxawaay boobu dafa des ndaxte soo xoolee xale yu bëri dañu dem si pression sociale doomu diw dem na ñëw na tabax na kër nangam xale bi tamit parfois su gënul rek am benn assise bu baax amul ce qu'on la tête sur les épaules soo moytul mu dugg ci loolu. laaj bi mooy naka la gune yooye nekk ay candidats non déclarés ci lu ñeel mbëkk mi bàyyi boobu la yoon co-directeur du GMD di xamle ni rek jot na gune yi xam xibaar yu ñeel programme yuñ fi teg ngir xeex lu ni mel. ñi ngi def instant bi on est en train de promouvoir des champions. des migrants de retour yu ñu financé aujourd'hui pour travailler at ñu jox leen ay finance parce que ñu ngi liggéey te ñu ngi réussir. xam nga nit ki dama yaakaar ne jeunes yi dañoo war a dem aussi vers l'informel. ñi ngi wax. ñu ngi bind ñu ngi communiquer. du ñu dem vers la for l'information alors que toutes les régions du Sénégal am nañ foofu ay bureau BAOS. dans les quarante-six départements am nañ foofu des points focaux qui sont dans les Sénégal service dañu gën di informer la population la jeunesse pour que ñu xamal leen franchement toog fi teg fi mën a nekk. lu ko dalee welum juin ba septembre nekk na ay weer yu ñu tàmbu ngir jël gaal yi wutali waax yu européen yi li koy firndeel mooy lu ëpp fukk ci ay gaal lañ fi jot a dab malgré politique contre yu ñu fi teg ngir xeex bi la jëyee mu mel ni rek gune yooyee di dem ci mbëkk mi soobu ñu te gëmuñu ni tekk fi mën naa nekk